waaw maa ngi lay remercier di wax ne euh, ñun li ñuy xaar. Mhm. mooy li ñu bëgg mooy li ñuy wax président euh, ñun ñoo sàkku woon maire yi def pétition ni dañoo bëgg président nekkaat suñu candidat ñun maire yi ñun ñi nga xam ne on est les exécutifs territoriaux ñun ñi nga xam ne. ñun ñoo nekk ak population Sénégal yi ñun ñi nga xam ne ñoo leen di guddeel di leen di bëccëgal. Mhm. ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy ñun ñooy exécuter les politiques publiques ñun ñoo ne li ñu gis ci li ñu compagnonnage bi ñu am ak président ak li mu def ci ak trois de la décentralisation ak li mu def ci gox ya gox gaane ñun moom moo ñu doy pour mu nekk suñu candidat alors on lui a dit même que on lui donne pas de chance li ñu bëgg ak fi ñu gis fi réew mi toll ak fi ñu jëm ak li mu fi def dañoo jàpp ne moom moom mooy la personne la plus indiquée pour diriger la coalition Benno Bokk Yaakaar pour ñu dem à l'élection présidentielle de 2024 li ci des nag débat moom waxoon na leen bu wax jotee dina wax mhm. moom mi nga xam <laughs> waaw te tey la war a wax donc am xam-xam yeggul ci nettali sa gëntu morom moom la mu war a wax xam na ko mais ñun la ñu bëgg mu wax ñun maire yi nga xam ne ñun ñoo ànd ak moom depuis deux la ñu bëgg mu wax mooy mu sampaat dëndam pour que 2024 mu continuer liggéey bi ñu doon def pour que 2024 Sénégal bi nga xam ne abordé na benn virage bu am importance ñu àggali ko ak moom. lii mooy li nga xam ne mooy ñun suñu mëbët en tant que qu'exécutif territoriaux te booy seet le Sénégal compte maire maires il y avait 475 yu fa toogoon. 475 sax lim la mais am na ñeneen ñuy fëgg ci bunt bi di ñëw le Sénégal compte 43 départements les 37 étaient là-bas. 37 37 étaient là-bas donc mun nañ wax ne. peut-être la majorité du majorité sax c'est plus qu'une majorité pas de l'unanimité mais c'est très proche de l'unanimité des exécutifs locaux sont avec le président Macky Sall.